moom weeru koor ku ma ci laaj dama laaj wàllu ñam sax question bi sax du ma neex man li bëgg rek mooy nga ne ma Cheikh Ibra Fall ak ak ndax moom dafa dafa doon su Sëriñ da koo ber loolu ko waykat naa ko yàlla da laa ber eh, ber googu sëñ bi da ko gën a da gën ci weeru koor ndax xam nga weeru moom ñëpp ci bokk yam jullit ñëpp kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun loolu la waxoon digal naa leen ngeen farataal naa ci yéen koor waaye ni ma ko farataale woon ci ñu njëkk ña comme yéen noonu laa ko ci yéen te booba nag ñu njëkk ña noon lañ ko daa defee dañ daa weer fan weeri fan nga xam ne du lislaam dafa dafa ñëw fekk loolu fekk fekk koor di am waaye am na beneen ba nag bu ne ci alxuraan boo xam ne bokkut ak kutiba aleykum siyaam boobu beneen kutiba la boo xam ni loolu ñii jëf ñi ñi ñi nga xam ne dañuy togg dañu dañuy togg ndogu ak di jihaat ak seen bakkan ñooñ ñooñ ñoo tax yàlla di wax ndax kutiba aleykumul xitaal am na mu ne maa farataal ci yéen xeex xeex xeex nag wax nga kurxun lakum dafa naqari ci yéen dafa metti te yéen da ngeen jàpp ne lu metti rek baaxul ndax xansa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum léeg-léeg ngeen bañ lu lu fekk moo gën ci yéen hmm. léeg ngeen ngeen ngeen bëgg dara tamit fekk ni moo moo moo bon ci yéen loolu nag day wane jëfi jëfi si Rafal jim jëf ci weeru koor nga xam ne ba àddina ba sosoo ba tey ni mu koy defee ko koy defee ni moom musta am hmm. ndax baatu ndogu moom kenn mënu koo tudd fenn hmm. ci àddina te sama xelu dem ci Cheikh te ni mu koy defee nii it ku wër àddina juróom-ñaar da xam ne lii amul fenn tamit fii rek la am te lim ci digg tamit benn nitu yàlla mosu koo diggee fenn ndax ndax bi ko Serigne Touba woowee 1916 Seex bi nag ànd na fukki at ak Serigne Touba ak ñett yoonu géej doog a taxaw. yaa ma laaj question de. Hmm. waaw yow yow li may li may li may li may tontu de ñett da nga koy dégg. Cheikh Ibrahima ànd naa fukki at cent ñett Serigne Touba. yoonu géej doo ko taxaw. 1881 ba 1880 1895 yoonu géej doo ko taxaw waaw yoonu géej 1895 ba 1915 la wala 1916 la togg ndogu doog am njëkk loolu. te ci lan la Cheikh Ibrahima Fall ne woon ba 1916 nag la ko woo mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ko dama bëgg damay ay gan damay am ak gan te bëgg nga teralal ma ko loolu la ko wax. moom la ko sëñ bi wax mm-hmm. mu génnee mu ni sëñ yaaram ku baax lu mu wax mu ne ko nee na day am gan mu ko gan gi weeru koor lay wax mu daa bëgg nga teral ko mu ne ko ay ndogu lay wax. daane ko bindal bindal tànk mu def mu def taa tomb muy tomb ak kaaf loolu taa tomb gi quatre cent la mhm. mu ne ko ëpp na wàññi ko mu far ko def ko taa tànk muy li ñuy wax taati daro mhm. muy neuf mu bind kaaf muy vingt neuf seex bi ne ko jox ab tànk tànk mooy motul fifteen ngeen wàll fifteen la mhm. ku ko jox ma gàddu la weeru koor nag ba ba loolu am ba tey mosuñoo dégg ku lu mel noonu waaye weeru koor dara jaam ëpp na loolu ndax sahru ramadan allazi unsila fihi alquran sahru ramadan mooy wàcc weer wi nga xam ne ci la alquran wàcc weer woowu nag daja am génn guddi goo xam ne guddi promotion la mooy inna ansalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahri am na guddi goo ne ci biir weer wi moo gën junni weer junni weer nag juróom ñett fukki at la ak nangam ak ñett wala ak ñeent su amee genn guddi na gu mel noonu kon bu Cheikh Ibrahima diggee loolu dafa am ndax dafa amul lenn lu lu Seex Ibra diggee loo xam ne suñu borom néew dina ko maye Sëriñ Tuubaa waxi noppi loolu nag loolu mooy ber gi ko yàlla ber loolu nag su amee képp ku ku bokk ci biiram la ngay def sa digganteeg sa sëriñ wala sa li ko def sa digganteeg Sëriñ Tuubaa rek wala sa digganteeg Seex Ibra rek wóor laa doy ndax boo àndeek say moroom ñuy xëy ngay xëy suñu wàccee nga wàcc ëpplante munu caa am ëpplante gi nag mooy ter teral teralante bi ñuy teralante ci suñu biir mooy comme lu mel nii ànd ak nit mu yanu nga yanu su xëyee nga xëy kooku bu àggee nga àgg amul lu ngeen ëpplante waaye nag teral gi nga teral sa jëmmi moroom loolu mooy li nga xam ne ci la rawanta bi ne nga xam ne loolu moom ku ne war na ko mën a def loolu moo waral bis bi kon su ma sañoon weer koor ku ci wax ab Baay Faal da nga naan ko Seex ak weer koor da fexe mu tudd ca waaw waaye aw ñam moom yàlla dafa waxoon ne innama nurhimukum li wajhillah hmm. te laa nuridu minkum jazaan wala sukura joxe gi ñu koy joxe dañ koy jox ngir jëmi suñu borom rek bëgguñ ci ku ñu sant bëgguñ ci ku ñu fay hmm. waaw te wayut xi moon a taxaama xalaa xubbihi am na beneen boo xam ne suñu borom dani laxad xala laxad xalaxna linsaana fii kabadin hmm. waaw ayax sibul linsaana alan yàqatira xale ahad alam naj xan la woo xay ne wala sax na fa safa waxa day naxu naji day ni kon fa laq taxamal xaq ba daan nag wama adraka mal xaq ba suñu borom dafa jël nit bind ko ci bind lu gën a rafet ba noppi nag daal koy defal li wax xaq ba loolu nag maanaam mooy jox mooy li gën a bëgg nga ko joxe daan ni faku raqaba faku raqaba awit xaamun fi yomin si masxaba man saa maqraba aw miskinan saa matraba xam ngeen ndog yi ñu togg di ko yóbbu ko sëñ Tuubaa xam ngeen ni xam ngeen ni mbàkke mbàkke duñ ko lekk mhm. mbaa du ñoom ndog ñoo koy lekk kon ndax xajul ci biiru kenn mhm. kon am na ñeneen ñoo xam ne làqatu nañu seen ginnaaw ñoo xam ne dañ koy soxla te ñun sax loolu dañu intéressé wut buñ ko doon toog ba noppi ñun ne nañ ko ci pax mi boobaa ñun su ñoon du ci nekk ndax loolu lañ ñu sant loolu la ñuy def ndax suñu borom mi naan la buubal fii ak naan la sottil fii fi ngay buub kon moo ko moom yàlla moo ko moom sën bi nga sotti ko ko moom yàlla moo ko moom kon dalay nattu ba xam kan moo gën a rafet ñun jëf li yebluwakum ayyukum ahsanu amalan ndax dee ak dund li tax suñu borom bind ko mooy lool dong nattuñu ba xam kan moo gën a rafet ñun jëf waaw ki bàyyam ne jox ma satala gi ma dañ coono bu mu bu mu la lu mu fay def nag ko jox rek bu dee ndey bu tamit noonu ñun moo tax lijjantiwul sax nañ koy def hmm. buñ ko gasoon mu xóot ñu def ko ci mpaxit suñu yoon néew tax ñu koy def waaye ku ne xam na ni jamonoy tàngoor wi nga ni Seex Ibra Fall laa yaakaar ba pare tëdd sa kër lànk bañ a ñëw ci ci ci ndog yi loolu teywul fenn ndax yéefari àndoon ak Yonent sallallahu xare masaana xew dañuy lànk naafeq yi dañu bañ ñi duñ dem naafeq yi laa wax alxuraan moo ni allazina yalmisuna al mutawihina minal muminina am na ñoo xam ne ci jullit ñi dañoo loolu mooy Baay Faal hmm. am na ci ñoo xam ne dañoo coobareewu dogu di jël seen alal di ko def ci yoon yàlla am na ñeneen ñoo xam ne nag amuñ alal juñ joxe wallazina laa yajiduuna illaa juhdahum am na ñoo xam ne seen far seenu farlu rek lañ am bu yenu jotee mën nañoo yenu su buub jotee mën nañoo bub su bale jotee mën nañoo bale mu ni leen nag mu ni yéefar yi mu ni naafeeq yi nag fa yasxaruuna min yéen a ngi leen di ree waaye acco ba yomal xiyaam saxirallahu minhum yàlla dina leen ree comme ni ngeen leen di ree hmm. yàlla nag reetaane yàlla mi ngi mel ni nit wax ak yow dara nga ko da nga dof maa la gën a dof xam nga yow naa ko maa la gën a dof dofoo waaye da nga ko wax ne ko loo may jaay maa la ko ëppalee ñoom la yàlla di wax naan fasaadahumullahu maradan fi xulubihim maradun waaye fasaadahumullahu maradan wala xasaabun alim xasaabun jooju moo ñëwaat yàlla nag ne yonante bi ni leen ni ko nag ñooñu def loolu nga xam ne suñu wootee suma soo wootee duñ ñëw bu leen jéglul yàlla buñ faatu bu leen jullee ndax ay naafeq lañ hmm. istaxfir lahum aw laa tastaxfir lahum sax in tastaxfir lahum sab'iina marra falan yaxfir llaahu lahum nga jégalul leen ak bañ leen a jégalul soo doon def bi seen nga jégalu leen soixante-dix fois yàlla du leen jégal ndax ñoom ay naafeq lañ waaw mu ne nag farihal muxallafuuna bi maq'adihim xilaafa rasuulillah wa karihu an yujaahidu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabiilillah daa am ñoo xam ne dañuy toog toog moo leen gënal dem toog moo leen gënal dem toog dem gi mu leen gënal dem nag moo tax yàlla na leen laa tanfiroo fil bu daw tàngoor wi ndax xam nga ni ndog yi xam nga jamono ji tàng na trop bàyyi lekk bàyyi naan tëdd ci benn barab lu sedd la lu sedd di la upp su julli jotee nga jóg julli bu ngoon jotee nga duy sa biir ba mu fees loolu ku ne mën na ko mm-hmm. waaye Cheikh Ibrahima daa am lu ko gënal loolu loolu mooy lii dajale Baay Faal yi waaw kon baax dafa am waaye baaxu baaxin dafa am kon joxe ñam am na solo waaye ni ko Cheikh Ibrahima joxe moom mus am ci àdduna loolu nag mooy rey bëgg a rey Baay Faal yi waxtu wu ne jërëjëf ah, jërëjëf